asalaamualeykum maa ngi nuyu ñi teew ci salle bi yëpp di am mbégte jël kàddu ci kanamu assistance bu am solo mais surtout ci jotaay boo xam ne suma nawlee yi ma ko seqal dalal nañu xelu réew mi dalal nañu xelu sénégalais yi dalal nañu xelu képp koo xam ne sa yaakaar tas na ci nguur gi nga xam ne ñaar ñu tële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 de l'avenir mais surtout ci nekkin ak dëkkuwaayu sénégalais ci jamono bii ñuy wax ak yéen boo demee ca Bakel nit ñi jaaxle nañ boo demee jamono ji may wax ak yéen ci dëkk bu mel ni commune bu Balu ci dëkk bu mel ni Arundu ci dëkk bu mel ni Yafera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 yamul ci wàllu politique donc bërki démboo Ndiaye waa Touba am nañu fi ay jafejafe jafe sëñ Mountakha moo génne xaalisam yeneen ci ay doomu Sénégal génne seenu gafa ngir taxaw waa Touba waaye ci jamono boobu moom monsieur le président délégué auprès du premier ministre ma tambal mbalu ca Kédougou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 fekk leen ci seeni jafe-jafe mais cher leader cher leader xam naa fi seen xol toll ci Sénégal anta yow yaay nga lépp lu jëm ci njaboot gi da nga ciy bàyyi xel wóor na ma ne lu ngeen am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 takkatu juuti yi danañu abal cuune yi danañu fi buus ndax sa xandang yi danañu randu opposition bi jël majorité vive la coalition sàmm sa kàddu vive l'opposition sénégalaise jërë ngeen